jërë ngeen jëf saltige séeréer si wax nañu li am ci réew mi déwén ubbi l'observateur ni ñu ko baaxoo at mu nekk ñoom saltige yi mu di daje ci seen biir gisaane réew mi gis ëllëgëm ñu naan ko ndajem xooy samedi ci guddi la ñu ko doon def fanaanoo réew mi ci centre Malango bu Fatick bët set di dimanche ñu siiwal li ñu ci gis saltige Cheikh Ndiaye mi ne woon coow dana bari ci mandam njiitu réew mi ñu naan dañ koy yokk dañu koy wàññi saltige Cheikh Ndiaye mi ne woon dana am bu faatu ci université Cheikh Anta Diop bu moom am na ñetti jabar ñaar ñi la ñuy gis ndax ñaar ñoo ay nit ñetteel ba la moom Cheikh moomee di saltigéb séeréer bi am na lu mu gis ren mi ko gisal njiital assemblée nationale di Moustapha Niass nee na Moustapha du jeexal mandaam ca bopp assemblée nationale li mu koy digal nag ne ab sarax moom saa kër ma jabal moo di wër hôpital réew mi fu ca nekk mu dem toggaay añ yu neex sarax ko malade ya saltigé Cheikh nañu président Macky Sall bu góorgóorluwul bu lu ko bu boobaa bu ba jàpp ci om yi te ñaari nit yu bees ci fitna teg ko pression nar koo sonal yóbbu ko deuxième tour bu demee deuxième tour dafa ñàkk élection yooyee bu bëggul loolee lépp am nag séeréer bi ne kon na président Macky Sall jënd aw yëkk dem ca Fatick gamu cosaanoo rendi ko fa def ko fukki saam ak juróom-ñeent sarax ko ay silmaxa nee na it nañu rendi ñaari yëkk ci réew mi benn ca Fuuta ba ca ca buntu école Mariama Niass bi fii ci Dakar lu ko may ay accident dina bari ci réew mi populaire nañu na lool ci réew mi waaye nag wax nañu li ñu war a ne ay sarax ngir mën a mucc ci jëye ji nga ko ñoom saltige yi libération wax nañu ci ay garaaw garaaw yu bari bari na yéene kaay ñu xëyandul mbirum UEMOA ak Hadjibou Soumaré la ñu xëyee bokk na ci Sud Quotidien mi ñu xëy xamal ne commission bu UEMOA Macky Sall fexe na ba Hadjibou Soumaré wéy di ko jiite l'observateur nañu coppite yi ñu doon séntu ci bopp commission bu UEMOA amu ca yëf yu buusewul toogu njiital commission UEMOA ba léegi ma nga ca loxoy Hadjibou Soumaré enquête dina kaay nañu Sénégal téye na yëfam Hadjibou Soumaré moo jiite ba léegi commission UEMOA fexe na ba Hadjibou Soumaré dese ndombal tànk loolee ba fekk ñuy jël beneen dogal le témoigné moom nañu la woon seen nit ngir bëggoon mu wutu Hadjibou Soumaré ci bopp commission bu UEMOA waaye yëf yi jàllul Hadjibou Soumaré moo fay nekk ba at mi jeex ki mandaam jeex réew mi quotidien nañu moo di Macky Sall ne ndombal tànk président CEDEAO ga mu takkoon gaa ñi tekki nañ ko takkal ko njiital Libéria mu di Ellen Johnson Sirleaf baccalauréat média bi ñuy wàcc réew mi ay jafe-jafe ma nga ca grand place nañu yëf yi ma ngay bëgg a tàq suuf ne épreuve philosophie anticipée yi nga xam ne àllarba ji la war a am professeur philo yi nee nañ dañu koy boycotté duñ ca dem ndax dañoo mere kilifay réew mi waa SAEMS CUSEMS ak grand cadre yéen kaay bi nañu ci OIT ak ci BIT la ñu fas yéene dem ngir pelente nguurug Sénégal direct info xëy mel ne ku xolam jeex ci yëf yi tax mu boole jàngalekat yi kilifay réew mi ni leen assumez vous maanaam li xew ci njàngame njàngom Sénégal ak njàngale meeg fi mu yegg si xam leen ne lu ngeen ci góobe rek yéen a koy gar